ne nii jamono di doxe tey soxlaatuma trois cent employés mais damay dem ci cinquante employés mhm. et s'adapter par rapport à sa donc dama ne même tey jii di ngeen gis ne ne problème bi après day dépasser impo da ngay gis ne ñeneen dañuy tëj parce que vache laitière bi leen doon alimenté tey la ñu ah, dagg mais man Guèye li ma jaaxal pour ñu teg ko ci yoon le problème euh, gis nga géey li nga wax ni mm. dama toog ma ne leen tey bu ñu xëyoon débloqué seen compte ñu fay saleer mm. ñu baal leen impo bu buñ ci tegee deux mois ñu tëj. man kii li ma jaaxal man parce que nit ñuy fonctionner. nit ñuy fon c'est-à-dire que le problème de E-Media yow à mois yaa ngi doon xëccoo. couvrir coupe du monde lu toll ni coupe du monde ngi xëccoo ak RTS. droit droit de retransmission ñu xañ la ko mais loolu ça demande des milliards. Mhm. yow avec ce nouveau régime six mois nga ne yow mënumaa fay samay salaire mm. mais loolu c'est un problème. déggoo ma de. c'est un problème gis le problème de TFM mais TFM nee nañ mooy télé bi ñëpp seetaan mooy télé bu ëpp ay publicité mais xoolal TFM ni mu recruté ci ay journalistes ni mu recruté ay animateurs am ña xam ne sax dañoo nekk en semence technique maanaam comme exemple dañu tëdd seen kër ñu leen di fay nañu wax dëgg yi xaalis bu fa lañ ko doon jëlee fan lañ ko doon jëlee. <laughs> nga xool nga xool avec ce nouveau nga xool l'ancien régime gouvernement euh, dernier gouvernement bi teg mooy lan gouvernement d'attaque attaque kan Ousmane Sonko. liñ fal ay directeurs ñi fal ay ministres ñëpp ñoom ñoo nekkoon matin midi 13h di saaga Ousmane Sonko. Mm-hmm. di ko xas di ko jàppale si média bi ñoom la Macky Sall xëy noom leen ministre ñi mu noom leen directeur. moom laa wax. Mm-hmm. c'est-à-dire que yow yaa ngi laaj. lan moo tax ñoom ñu si doon génn. waaw ah. parce que dañu jël si li ñëpp doon bokk. ñu jël di leen ko neexal. pendant ce temps y presque une autre presse trop fatiguée. mais ay réalité la confronté wu. aujourd'hui ces patrons de presse sont confrontés à la dure. réalité de ñoom seen li ñu war a dund normalement bu jaaroon yoon. Mhm. c'est ça dama ne la. da ngay dem gis caméra yu ponkal yooyu gis fii lii fu ne lay jaar gis techniciens yi dul jeex loolu amatul amatul loolu moom laa la cest dire que même bu impôt yi problème bi day subsister. parce que la ñu yanu la ñu antaloo ñu woon. Mm-hmm. parce que ñii leen ko téeñaloon muy régime bi fi passé téeñ bi moo dindeeku. Mm-hmm. xam nga paanu weñ. waaw paañoon bu tàng jër bu ñu ko tegee sa bopp. non da ngay leel day tal. Mm-hmm. maintenant bu la tegalee tooñ da koy amati tooñ bi moo fa nekk la ñu yanu moo diis diis goo xam ne antaluñ seen personnel parce que lan leen doon biberoon la état bi xëcc andi. dindi non non c'est pas soxol c'est la vérité et loolu mooy dama ne ils n'ont pas vu xam nga mbir nag bu demee ba nooy venir quoi mbir bu demee ba neex si yow nooy e xaalis boo liggéeyul seetlu leen képp koo gis mu yàq xaalis liggéeyu ko dëggantaan képp kuy fooy dërëm liggéeyoo ko léegi yow lan la doon jox te liggéeyoo ko mu la doon arrangé loolu bu ñu ko dindee da nga koy sentir. effectivement et loolu lay problème bi. jël investir aussi domaine immobilier dégg loolu de. parce que xam nañ ne oh ils ont ils ont ils ont vu bon ce qui ce qui va arriver quoi affaire avec ce nouveau régime léegi nag gars yi ci lañ prox noonu lu jënd ko ay immeuble expliqué. kooku kooku beneen débat la alors imam euh, ñu ñëw ci deuxième point bi mm. euh, euh, ca ay jamono ba ñuy wax déclaration de politique général Ousmane Sonko PM dana leen woon balaa may ñëw assemblée faw ngeen jubbante texte yi. Mm-hmm. faw ngeen soppi règlement intérieur <coughs> mu mel ni député yi fekk si nañ ko la mu doon wax de. ndax def nañ fi convoqué nañ fi réunion am na benn procédure d'urgence bu war a am. pour ñu convoqué waaw. Mhm. pour ñu war a tëggaat règlement intérieur. est-ce que danañ fa egg. ah pour déclaration. imam déclaration. do assemblée bi dañ koy tas. Mhm. amul njëriñ. amul benn mais amul njëriñ parce que fa ñu jëm ci déclaration bi la ma la waxoon semaine passée moom laa lay waxaat bu ñu fa demee dañuy saboter dañuy saboter sabotage yooyu donte day dure deux jours. Euh, rajo yeeg télé yeeg émission yeeg plateau yi di ci wax mbooleeg lii fi jóge ñu naan euh, grève grève bi waa presse bi def ak yooyu yooyu lañ lañ talatul taluñu loolu mhm. semaine bii incha allah ba mooy tuul hmm. njort naa ne dañ koy tas li ma la wax moom bi moo nga jàpp ko ay déclaration yi Ousmane dépassé na foofu déclaration de politique générale romb na ko bu yàgg la mu waxoon foofu la sax ba leen jomaay woowee wax leen dañu dem biir assemblée di xuloo ak di xii xiiroo ak xëccoo ko jaar gauche droite léegi nag ñoom ñoo ca des de nañu tëgg lu leen neex mais li ma wér wóor maa ngi gis léegi tekki. Lamine jàlloo gis naa ko Lamine Diallo. Mhm. mu ko posté ci ci Facebook am su ma juumul. am na lu mu bind ne nañ ñu may jàmm rek ñu tas assemblée bi. am ah, la wax. mu ngi nii. loolu la bind. loolu la bind te dëgg loolu la ñëpp wax li ñëpp wax mooy dëgg. Mhm. assemblée bi amatul pour nekk fii nañu ko tas te ñu préparé deuxième point boobu ma lay wax. Hmm. riir na temps yii yëpp ku nekk di ma woo naan ma wax ak mais nañu tas assemblée bi bu ñu jógee ci tas assemblée bi nag. deuxième point bu ñu fi bu ñu fi waatee ah. ma décortiquer la pourquoi ma wax deuxième point bi. mais assemblée bi moom bul bul sol ñu wooteeg ñu ñàkk a lépp ci yem dañuy guddal jël rek ñi ma gis xam nañ li leen di yoot ak li ñu nar teg duñ leen ko may. Mhm. man de sama position duma jàngal président de la république dara duma ko sañ naa ko wax nag muy dégg. Mhm. du ma jàngal premier ministre dara mais suñu amoon sañ-sañ parce que ñu ngi ci seen gannaaw di leen jàppale mooy assemblée bi nañ ko tas. assemblée tas na bu yàgg. tas na boppam bu yàgg. nañ tas voilà. mais malgré disposition yi. mais tas li ma wax tas na boppam dara nekkatu fa. mais section ordinaire extraordinaire la mais nañ ko convoqué noonu. bu may gis léegi ñu hmm. ko ci examen de la proposition. mais mais mais malgré disposition yi député yi nekk léegi pour defaraat règlement intérieur. waaye yow loolu amul tout ça tout ça. <laughs> xool c'est pour c'est eh, na mbuus. déglu pour essayer de survivre. en réalité l' assemblée nationale du Sénégal si magistrature existe existé wul réellement. existé wul. parce que li ñu ils sont improductifs. et ils ont écorné l'image du Sénégal. maanaam daal dañoo yàq deru assemblée. mais assemblée bi nga gis gendarmerie di intervenir. tout le temps la fin sax li wax moo ci nekk. ça n'a jamais existé nan lañ fàlle président assemblée ay gendarmes yu ñëw ñuy voté. mais xaaral ma la assemblée bi ngay gis ay Jacques Chan. Mm-hmm. ay maye jëri ay sukka jëri pende jëri di daw fu ne. ak non ak di duma ay député ci kulus yi. mais moom la mooy mooy mooy chaque champ yi. Bruxelles yi voilà demal ah. accroupi accroupi accroupi demal nga toog ne. mais nañu woon di dëgg. <laughs> assemblée nationale dama ne sax nañ soppi tur wi. Oh, def ko assemblée du peuple. du peuple teg règlement intérieur boo xam ne ah, foo mënti jóge boo egsee ci buntu assemble bi. sa manteau appartenance fa nga koy bàyyi dugg règlement intérieur boo defee débordement mu dal sa kaw. parce que ça doit être l'assemblée du peuple. dama ne assemblée yan daan gis gars yi bu ñu doon développé da nga ciy jëlee xam-xam da ngay kontaan. da ciy jàngat lu baax loolu moom am na. ay député mooy li ma wax. ay et je sais que tey mooy li imam wax. Mhm. Bassirou Diomaye le président il va prendre la pleine mesure de sa responsabilité. délai bi jot na. décret bi bu mu ko defax bic bu mu bindax bic na ko signer marqueur. <laughs> non c'est ça la réalité. xam nga la moo tax hmm. ñoom danoo weddi seen bopp xam nga booy xeexal nit souvent. Hmm. ah da dem yow ba yow lan la doon wax yow nga reconnaître ko parce que dana assa dañ leen carrément le premier ministre ab Ousmane Sonko dana leen man mënumaa ñëw ci assemblée bu ma xamul. gaaw ci yoon ah ci yoon bu ma reconnaître parce que président Macky Sall ba mu génnee premier ministre. ñoom assemblée bi dañoo génne les articles 97 98 99 vraiment donc moom bu indiwaatee premier ministre assemblée nationale dafa war a mhm. actualiser son règlement intérieur qui est mhm. manuel de procédure am dafa ko léegi nag te pourtant dañ ko doon weddi di bañ yenn journalistes yi mu ngi nii mhm. débat bu ne def nañ ko fi di jéem a weddi et cetera naan dafa ragal dem et cetera koo xam ne assemblée li mu doon metti moom rek nga doon gis mooy taxaw affronter ñëpp coow xam nga nag ku waxul dëgg wax la ca ginnaaw dëgg. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom seen bopp ñoo bañoon mu gi ñoo wootante dem sali et cetera di jubbanti pour delloowaat. donc ils se sont contre ils se sont contredits yow ñu ne la DPG la la wax yow nga def conférence de presse ne lii nga xam ne constitution moo tënk Ousmane sonk pour mu ñëw assemblée constitution boobu moo tënk tey président ne ko heure bu jotee. mën nga ko tas. yow attaqué woo l'objet mhm. muy DPG bi mais nga ne yow da ngay attaqué loi boo xam ne tey pouvoir ba nga xam ne constitution moom la jox président pouvoir boobu da koy dindi comme ça du la tas. nga mën a continuer say privilèges. amoon nañu yéene boobu daal dafa mel ni génn nañ ci. parce que dafa mënul prospérer. mais loolu mënul prospérer. mënul prospérer parce que ils se sont découverts c'est-à-dire que ay bukki lañ yu sangoo deru béy c'est ça la ils sont là que pour leur poche. Mm. moo tax ma ne on doit aller vers une assemblée du peuple. Mhm. Mhm. ndax même mode ni ñuy jëlee assemblée nationale ni ñuy élire député yi war nañ ko. seelaat dañ ko war a xoolaat dañ ko dindi. Mhm. dañ ko dindi liste nationale rek. dañu war a dindi affaire ba nga xam ne c'est en réalité l'émanation du peuple moo fa war a nekk. et puis ñoo xam ne aussi vraiment ils savent quoi du riz riz ba doo fa def x nga bëgg nekk na dañ lay jox projet de loi dañ lay jox ay budget nga koy càmbar. député Macky c'est extrêmement grave parce que danaa non après dañ ñu lay jàppale et cetera c'est peine perdue xaalisu Sénégal lañ leen di fay. ak toog biir ñi leen di accompagner biir assemblée di seetaan laay nan woon di dëgg. il faut que ñu régulariser loolu man loolu laa gëm. Hmm. cette assemblée en réalité existe ci kanamu nit ñi nii mais c'est une assemblée qui n'a jamais joué son rôle. et par conséquent morne la. Hmm, morne la ko di ko fay ko. maam yi morne la assemblée bi mosul joué rôle la mosul ah. taxawaay taxawaay. assemblée weesu naa nekk morne kaay ma wax la a li ci a dañoo illégal. ah oui ah, donc ñu ci illégalité léegi lu tax nga ne dañoo illégal waaw